jottali leen nuyoo ci turu euh, Serigne Abdou Latif ndax bu doon coobareem lépp lu ñu fi def da koy teewe waaye xam ngeen ni fi mu toll euh, am na yooyu ay yitteem mayetu ko ko ndax ñun ñi ñëw sax daanaka jànkonte leen def doog a mën a ñëw kon rawatina moom ak ne mu demee waaye yéeneem ci bis bi dara desu ci di kon ñu ngi wax ci kàddoom ak teew ci teewaayam ak jëmmam ñu ngi sàkku itam bala ñuy def benn soññee walla dara ñu tekkeeral euh, def ñaan fàttaliku sëriñ ndaam euh, mi ñu tudde bis bi kenn ku nekk loo xam ci lu ñuy ñaanal ku la woon ginnaaw euh, lu ci jàppandi rekk ñu ne tekk fàttaliku ko ñaanal ba noppi lu ñuy wax ñu soog koo wax lu ñuy defate ñu soog koo def ginnaaw bu loolu jàllee euh, li ñuy def rek mooy jottali leen mbégte ak ak cant ak xel mu dal ndax li ngeen def bu ñu demee ba njaboot gi dajaloo euh, dajaloo bu ñu jëmale ko ci jokk ak bokk ak ak bennoo euh, duñ ci amee lenn lu weesu xel mu dal ak mbégte di leen ñaan itam ngeen lu ci ba nii ngeen ko tàmbalee ngeen wéyale ko ni waxtu wu nekk muy yokk di jëm kanam te mel na ni loolu mi ngi ci am sax ndax li ma daan dégg ngeen daan ko wax mooy euh, sëti Seex Isaa dem na ba mel na ni yeneen sët dolliku na ci muy yi ma sëriñ mortaan yi doon limal léegi te xataayu waxtu wi tax uh, àggut ba wax naa ko ne ko bu bu ñuy jógee ci lii nañu ñëw gën ma koo leeralal uh, ma gën cee dugal sama loxo gën leen a jàppale ndax rafet rafetlu gu ma rafetlu loola lépp lu jëm ci booloo ak ak ànd ak uh, delloo si la mag ña nekkoon démb rekk dara jëru cee xeeb ndax mën naa dox ba àgg fu ne amaa nag li nga xam ne nii moom la kilifa gi sàkku moom it liñ ci tontu rek mooy ñaan suñu boroom ci kàttanam gi ak ci ndimbalam li mu defal nu jàmm ju mat sëkk matale réewum senegal mépp bañ koo yamale ci département bi rek wala fii na ko matale ci réew mépp euh, matale ko ci waa Sénégal yépp defal nu itam ak wér ci kàttanu suñu boroom ak koloreem di gëm ak euh, sëriñ Touba mi wax ni ansil shifaaka makaana daai wala tuamil na bilibtilaayi ci barkeb jëmm jooju ak ki nga xam ni mooy dogal di woppal di wéral ñu ngi ñaan ci darajaam suñu boroom loolu ñuy dégg te di ko tiit ñu dàqal ma ko bu du fi jege ci barkeb Sëriñ Tuubaa ndax wenn bayit woowu rek suñu boroom mën na jee sukkandiku ba def ko def ci coobareem ndax yàlla tëlewul dara ñu ngi ñaan daal yàlla def jàmm ju mat sëkk ci réew mi dajale ko fépp defal def ko ci Sénégal yi yépp itam dëppale seeni xol jubale leen bañ mën a ànd saytu réew mi e, la ca war lañ ca man ñu def ko ca li ci des e, suñu boroom àggaleel nu ko ci ndimbalam loolu mooy li ñuy ñaan te di ko tontu e, Cheikh Fall ak kilifa gi doon wax mooy jàmm joo xam ne jii day matale Sénégal gépp matale Sénégal yépp itam ak mucc gu mat sëkk ci loolu ñuy tiit mu bañ a jege fii waxuma laa di fi dugg yàlla mën na ko leneen li ci des nag mooy wàllu soññee soññee moom boo koy def sa bopp ngay jëkk a soññ boobu bala ma soññ kenn ab sët bala nga ko soññ da soññ doom ba noppi hmm. ndax liñ fi dajale mooy jëmmi boroom njeng te dafa gàddaayoon fekki Sëriñ Tuuba am lu ko taxoon a dem ba mu demee loola ñu defal ko ca ba defal ko ca lu kawe njortam dellus mu dellus dem gi ba ñu defal ko lu kawe njortam mu dellusi nag aw sas la aw sas la hmm. wuñ ko sas ndax Serigne Touba euh, xeet li bindee fii mooy li taxoon suñu borom indi ko fi saayir ak baati àdduna ak alaaxira bi mu jógee gàddaay euh, dem di ko fekkee dafa mel ni te joojoo ko taxoon a dem di fekki sëriñ bi ba mu demee la mu fa jëlee ci biir loola la ah aw sas nag daf ciy am ci biir ndax suñu boroom bu yónnee ab yonent ci aw xeetam hmm. euh, rasulullahi rek lañ yónni kaafatan linnaasi waaye ñi ci des ñëpp seeni xeet lañ leen yónni suñu boroom day jël xeet wa euh, dénk ko yonent ba hmm. wax ko na nga xam ne nii mooy tax ñu mucc ci àddina ak la leen di muccal musal àllaaxira am sasuum ko ci sas bu ko defee yonent ba nekk ci di yëngu ba ak dundam jeex sëriñ bi looloo ko fi indi woon ci la nekk ba gisatuñ ko borom jànneet ba mu ko fekkee ba mu ko joxee la mu koy jox sas wa daf caa ànd léegi nag bu ñu demee ba mu nekk fi di ni ci sas wi ba gisatuñ ko mu dem bañ des fi ku ne xam na ni ab tool moom boo ca nekkee nekkal ak jëwriñ ngeen di bay ba jëwriñ ja wàcc war ngaa xam ne yaa fa sës li des ci tooñ wu moom war ngaa jéem a am jomi àggale ko ndax ku ñu ni doomi Seex Isaa nga wala ab sëtam nga am na lu ñuy baaxoo ak yow loo xam ni loola doo nangu dara manki ca ka nga koy séqal itam du bëgg dara manki ca ci biir loolu nag dafa am luy tege ci saw loos not la tege woon ci loofu Cheikh Issa day gàll ci saw loof ni ngay toppatoo lee ba doo bëgg dara manque ci na ko booleeg am jomi nag li Cheikh Issa gàlloo woon ci aw loosam nga gàlloo ko li li ciy dimbali nag mooy ci tënk rek ndax waxtu waa ngi gudd mooy li may dénk sët yi mooy li ma leen daan dénk te di ko dénk sama bopp mooy fexe xam Cheikh Issa lan la nekkoon ak lan la ko borom Tuuba daa ak lan la ko daa tere ñu fës ko yéene xam ndax nit mënta def lu mu xamut buñ ci sonnee ba xam ko ba noppi nag fës yéene taxaw temm ci ndigal yi ñu ko daan jox moom luñ ca man ñu def ko luñ ca defut nay ak tële ñu àggalee ko yéene tere itam ñu koy moytandiku lu luñ ca mën a bàyyi ñu bàyyi ko luñ cay juum wala ñu rëcc ba def ko ñu def ko ci ak tële ak ak manqué te tuub ko ngir suñu borom jéggal lu ko defe naa ne loolu buñ ko defee mbooloo mi dina am njariñ ndax bu ngeen nee kat sëti Seex Isaa ngeen dajaloo ba noppi te la daan xew ci Seex Isaa lam daan yëngoo la doon dox yëpp dara manqué wu ci roy gi ak jaar ci ay tànkam bu manqué dara matut su ma tey leneen lu des dara manqué na ngeen maase ci fexe xam ci lan la nekkoon ngeen fas ci yéene tënke te te gàll ci seen bakkan fas yéene lu leen koy tey rek na yëpp tële bu ma sëkk te bu boobaa na ngeen fa sësale yéene bu ko defee bu boobaa yéene ji danañ leen ko fay euh, jëf ja waaye nag wax ni diwéy saa maam ba noppi mu awoon ci ay tànk tool bi mu doon bayee nga dal aw dooñ ci tool bi e, jéemoo fexee dooñ wi set xanaa di yittewoo rek la sa maam defoon ndax loolu bu ngeen ko seetee léegi dafa bari daje yu demee nii fu mu amee yaakaar naa ne bu ngeen ko deful tey du ñàkk ngeen daan ko def wala di ngeen ko defi mooy waxtaan ci Seex Isaak ak dundam ak jaaroon na barab sàngam Sëñ Tuubaa may na ko lii defal na ko lee defal na ko laa ngeen bàyyi xel ci ni bu toogoon rek di di ay jaloorey maamam dara lu sotti nañ ci boole nag di jéem a yëngutu te xam ni tool bi setagut nekk fi di wax jàmbaar Seex Isaa rek ak may yu ko Sëñ Tuubaa may ak ñu ko defal ak loola euh, doyul loola moom moo ko def te boppam la ko doon defal léegi nag li ma leen di dénk mooy su ngeen xoolee loola ba noppi da ngeen di fexe ba kenn ku ne def dara loo xam ne nii danga ko mën a génne ñu wane ni lii yaa ko bay ci dooñ wi lu dul toog rek di tagg seeti saa bu ñu ko defee maanaam tool bi fi mu yemoon fa lay yem ndax ab tool bu ñu jekkee bu bëccëg jëwriñ ji wàcc dem ca kër ga toog bàyyi fa ñi doon bay kenn ku ne ne aw dooñam yoru dooñam lay lay àggale mbay ma xam ngeen ko toog ca kër ga du ko yeggale toog rek di wax njàmbaaru borom tool bi du du ak setalul ab tool tool moom li koy setal mooy futtiku ne ci naaj wi xool borom tool beeg jëwriñ ji fi mu nekkoon nga ne fa fu mu roccee boppam nga roof fa sab bopp mooy tax tool bee set te am na lu wolof yi wax ne mujjee ab puso mu réer dara jaru ko te li ñu ci mën a musal nag mooy xool fi mu doon aw fu teggee tànkam ñu teg ko fa lu mu doon bañ ñu ko bañ lu mu seexlu ko lu mu doyloo woon ñu doyloo ko euh, Sëriñ Tuubaa defal na ko loo xam ne nii doy na sëkk wala si ñu ñu di ko fi wàcc di wuti feneen leneen suñ ci jàppee te doyloo ko te aw fan war a am aw fan war a aw lu ngeen soxla dina leen fekk fi ngeen ne te du ngeen jóg di ko wuti du ngeen ci def genn ñàkk jom bu ñu leen di xeebe wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu amin jëm amin amin